I'm know. wote ci radio yi di wax ci mom bam tollu fi mu tollu kon mom bu wacce yow dañ koy wax dafa wàcc yoon dañ ko rek da may may ma wax. da may may ma wax da may may ma wax. waaw da may nit ñu wax man musuma wàcc yoon ci làmba. man musuma ñak nit respect. man musuma yak lamba yow li ngay wax ni xamoko na yow yow am mbeur nga won te ñaari combat nga am xaw ben combat. tay bo ñëwee faram yow tay la la xam man fa la me yow mënuma wax lo lu ma xamul ci lamba bo bëgge deug deug ndax man lima def ci lamba yow defoko degluma rek dama lay wax rek gis nga yéen. ama ne amoo dara lu ma amul amoo dara lu ma amul amoo dara lu ma amul. non non man waxuma loolu man dama làmb laa kaaturu làmb laa la wax dama la kaaturu làmb. man damaa tëdd avant làmb damaa na maan da ma bëgg a jaxase par amateur yéen seen poche ngeen fi nekkal. yéen ñëpp ay dil ay dil a barki maam ama ne xool sa ginnaaw xool sa ginnaaw. non waxuma waay yow may ma bi ma kuy nelaw du de. man damaa liggéey avant làmb. néeg bi ma tëdd nii kuy nelaw du am bu yàggee dañuy tëgg seen combat yi. yow ay yow ay néeg ngay wax ñun ay kër la ñuy wax.